ñun murit nag suñu jikkoo sunu melo sunu baax li nga xam ne ku la ko wax ak ku la ko waxut moom lay def moo di képp koo xam ne eh, ni yàlla def sëñ Tuubaa neex na la wutaleetul la ak suñu bopp ni suñu bopp rek lan la def ak koo mën a doon koo xam ne ni mu def ni ko yàlla def naqari na lii li ma wul la ci dara